voilà yow ngi nekk responsable euh, benn bokk yaakaar euh, responsable fële sa gox bii di Sicap ñu gis tamit Zahra Iyane moom tamit euh, moom tamit nekk ASAPEX voilà moom tamit génn na benn texte quand même fan yi ngir mel ni ku xaw ñaawlu li di xew sa jàngat ci li mel voilà vu que yéen a bokk si benn Sicap bi quand même. waaw dama koy dama koy ñaawlu dama koy ñaawlu mooy bu ñu nekkee ci parti politique. wala ñu nekk ci coalition boo xamante ni am na ay instances yoo xamante ni les membres mën nañ fa échanger ces points de vue je pense que il n'y a pas besoin d'aller dans la place publique pour pour pour montrer sa position. donc position yi da koo da koo jël mais ces positions n'engagent qu'elle.

bu fekkee ni kooku moo ñëwaat ba tey jii nii parce que cette même personne du président de la république moom moo nekk di jël les les les les les mesures. kooku mu donne toog di ko xalamal di wax ni mon fi gën di wax ni li def da koo def ci vision éclairée. kooku moo amaat vision éclairée pour reporter élection yi donc constance bi moy que le président Macky Sall mu ki démarche bi nga xamni ni la mësa a réew mi. Hmm. et bu mu ko téye parce que démarche bobu non président Macky Sall doxalé montaigne tamit est-ce que c'est pas euh, moom tamit na andu ci kan. c'est sa liberté mais c'est sa liberté c'est sa non voilà quoi on le concède mais li nga xamni ne dañ koy ñaawlu moy su koy wax nako wax pour sa propre personne mais cela n'engage pas. la coalition beno Bokk cela n'engage pas l'alliance pour la République et dans la commune des Sicap Liberté hmm. on a eu à le clarifier euh, dans un point de presse, pour mm. dire que ces propos n'engagent qu'elle, les responsables et les militants de l'Alliance pour la République et de la coalition Benobok Yakar restent plus que jamais derrière le président de la République et l'accompagnent dans ses, dans ses décisions et dans sa vision. Parce que, ay nit dañuy ànd parce que dañoo bokk gëm-gëm ñu nag mag président Macky Sall ñoo bokk gëm-gëm. ñu dañoo gëm ni ko def sax voilà na ko voilà Youssou génn na wax Abdou Latif Coulibaly. xam mais waaw xam nga tey dañuy nangu dañuy nangu nii. loolu mooy wan ni ñun suñu suñu biir am nañ une liberté bi nga xam ni moom la militants yeeg responsable yi am maanaam seen bopp. C'est forcé pour pour position la ku la bu nga mais cette décision a été prise pour l'intérêt des Sénégalais et que képp ko xamanteni da le président Macky Sall li nga xamni mom report des élections le mandat du président de la République ni nga ni ñuy ni. Hmm. en cours ba bataille. Ah, parce que parce que 2 avril quand même. voilà quoi 2 avril. dépasse le 2 avril. ba le 15 décembre. waaw ah, mais ñu ba successeur am yegg 2 avril à partir de 2 avril président Macky Sall dinañ lu ben légitimité quand même gis nañ Bougane Gueye wax na aussi waaw une liberté ah, wa mais c'est leur liberté. mais bu ñu yegsee ba ci le 2 avril dinañ xam ni réew mi ba tay amna na ku koy jiite. manam loolu moy lan. loolu moy force ngeen bëgg wax ngeen bëgg imposer. non pas non pas la force. ce sont des lois et des textes qui l'ont permis au président Macky Sall c'est une proposition de loi de loi bon moment moo repoussé demandé à ce que je repose élection le président de la république dans ses attributs a le décret et ce décret de report une date à une autre date ah là une date à une autre date c'est les conséquences d'un report du coup le 15 euh, le 25 février Donc il y date date bi le 15 décembre et entre temps donc le président Macky Sall a permis aux Sénégalais de s'asseoir parce que savons que le schéma politique est transition yi ñuy def ak transhumance yeeg jéem a laa ko bi amul njëriñ Sénégal moo am njëriñ que tey jii nii képp koo xamante ni politique nga képp koo xamante ni Sénégal. mais quel exemple est dina am est-ce na am est-ce que <laughs> est-ce que jàpp ngeen tamit voilà quoi. man jàpp naa ba la ba fii ba le 15 décembre. li président Macky Sall wax ni moom moo moom moom date boobu noonu lañ fixé pour élection yi. jàpp naa ni dina am. Hmm. et nag. dafa am loo xamante ni buñ ci yegsee ba mu nekk ay précédent parce que am na loo xamante ni fitna lay jur. parce que bu ñu jëlee ay décision jël ay mesures mu jugee ci ay bànqaas yoo xamante ni. comme assemblée voilà. comme assemblée nationale. Mm-hmm. dépassé na ay un parti politique. dépassé na ay conviction wu groupe yu toog di waxtaan seen biir di xool des intérêts pour succéder ce qui est les personnes qui sont là ba dépassé na intérêt yooyu noonu. Euh, voilà c'est tout le Sénégal. Mm-hmm.